alhamdulillahi munawwiri absaari alaarifin bi nuuri almaarifati walyaqin wa jaadibi adimati asraari almuhaqiqin bi jaadabati alqurbi waltamkin faatixi aqfaali quluubi almuwaxidin wa sallallahu ala man laa nabiya bacdahu wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lah واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله bokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ci seen émission shukran ci dakar midi point net bi fadilati cheikhina cheikh alxasan seen ayadahu llahu wa nasarahu yal na ko yàlla defal jàmm defal ko ay bokkam koor gi ñu soobu yàlla nañ ko àggale alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu ñëw ci tomb bu am solo tey boo xam ne jafe na lool jaam ñi mucc ci léegi mooy tooñ te yàlla waxoon nañu ci boppam ne inni xaramtu zulma ala nafsi fa jaaltuhu baynakum xaraaman fala tuzaalamu mbokk yi yàlla suñ borom bi subhaanahu wa taala buur bu tedd boobu waxoon na ne man day seen borom añaa araamal naa ci sama bopp tooñ kon nag jël naa tooñ def ko mu xaram ci seen diggante bu leen tooñante mbokk yi tooñ di lu doy waar léegoo léeg nit ki def ko xeeb ko te fekk na lam def sax xamul dayo bi na mu toll moo tax yàlla wax ne kullukum daalun illa man illa man ihtadaytuhu fa ashhiduni ahdikum ya ibadi kullukum jaa'iun illa man at'amahu yàlla sun borom bi subhaanahu wa taala ci mbaaxam nee na yéen doomu aadama yi yéen ñëpp dangeen a sànku lu dul ku dimbale ci sama mbaax ak bopp gindi nga jubbantiku yéen ñëpp da ngeen a xiif man seen borom bi ku ma joxul loo lekk doo am loo lekk ndax nit amul bay amalal boppam dara bi nga ñëwee ci àddina rek nga yëg ne existé nga ci diggante bi kon fëgg fi dënn xaju fi ndax yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala moom rek moo am nguuru tey ak nguuru ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci lim ñu dénkoon ci xajjatul wadaa mooy daf ne woon inna yawmakum haada dimaa'ukum xaraamun wa amwaalukum xaraamun baynakum falaa tudaalamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xajjatul wadaa ne seen deret yi bis ni tey araamante na seen alal yi bis ni tey araamante na bu kenn jël alali moromam te borom joxu ko ko bu leen tuurante deret na ngeen ko wattandiku moom sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu waxoon wëlbatiku ne ñu laa tarjiuna baadi kuffaaran yadribu baadakum riqaaba baadin na ngeen wattandiku suma fi jógee ngeen delluwaat ci ak kéeféer ñu ne ko luy ak kéeféer mu ne ak kéeféer mooy kenn ku nekk bocc jaasi di dal ci sa kaw morom ngir sa intérêt bopp euh, loolu nag suñu ko waxee mbokk yi boo seetloo suñu réew mi jamono yi mu toll nii dafa mel ni làmbi wax dafa sàjj te di ko bëgg a te mbokk yi wax lépp lu mu sumb dana ko yàq euh, sayidina luqmaanul hakim radiyallahu anhu dafa am benn bés sangam ne ko dama bëggoon nga dem rendil ma benn gàtt mu rendi gàtt bi mu ne ko indil ma la ca gën a bon wax nañ ne luqmaan jël xol ba ak làmmiñ wa indi jox ko ca ëllëg sa sang ba amaat gan ne ko demal rayal ma gàtt mu rey gàtt mu ne ko indil ma la ca gën a baax luqmaanul xakim dem indi xol ba ak làmmiñ wa mu ne ko luqmaan bu ma jaaxal démb dama la laaj li gën a bon nga andil ma xol ak làmmiñ tey dama la laaj li gën a baax nga andil ma xol ak làmmiñ mu ne ko inna fil jasade euh, comme ni ko yonent bi waxee inna fil jasadi la mudghatun ida saluhat saluha al jasadu kulluhu wa ida fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal nañu ne ñaari suuxa ngi ci biiru doomu aadama mu di ko doxaale fu mu toll ñaar yooyu bu ñu baaxee organe bi yëpp normal waaye ñaar yooyu bu ñu yàqu organe yëpp yàqu parce que ñoom ñooy commanditaire outil euh, yi nga yore euh, mbokk yi da ngay yëg ne xol bi lépp lu mu namm bu ko bu ko soxlaa tànk bi dana jóg doxi ko dana ca gunge xel mi ba mu waxloo ko làmmiñ wi te mbokk yi làmmiñ boo seetloo fi ñu ko denc moom dong lañ fa nëbb ci ay cër beneen cër bu ne bu mu mën a doon mën ngaa jël sa loxo teg ca waaye làmmiñ moom fañ ko def dafa xóot ngir danger gu mu danger mbokk yi làmmiñ boo seetee ni mu bindoo yàlla nga ko def ci tunel ci tunnel la yàlla dugal làmmiñ jël siddit yi gën a am doole muy siddite law daaj yi téye ko ko yemu ci dafa jël am siiñ kenn ku nekk boo demee ci estomato yi xam nga ni siiñ ni mu mel dafa dëgër boo demoon tey di buddi bëñ pikiir bi nga xam ne moom la ñuy jam ci bëñ bi pour anesthésie bi pikiir bi sax dangay ngay gis ne ci weñ lañ koy dugal si noo day toj ngir am doole gu seeñ am doole yàlla yemu ci jël ay yax yaramu nit amul fenn fu ay yax di feeñ fu dul ci gémmiñ yàlla jël fanweeri yax ak ñaar kastare ko bañ def ko ay grillage mu ràbb ko wër ko yàlla yemul ci loolu jël am tuñ muureewaat ko làmmiñ woowu moo tax cër yi suba soo xëyee teg ko ci suuf soo ko yëgee ak soo ko yëgul ñoom ñëpp danañ bokk ne làmmiñ ñi ngi muslu yàlla ci yow ndax tey fuñ dugg yaa ñu fa dugal luñ génn yaa ñu ca génnale bokk na ci sax euh, garaaw gu làmmiñ garaaw ak àgg na ci yowmal qiyaam yàlla buy questionné jaam ñi day téye sax seeni làmmiñ ndax wax na ko ca sóoratu yaasin al yawma naqtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima si yaksibun euh, mbokk yi yàlla dana téye làmmiñ ne cër yi kenn ku ne ko waxal la nga defoon làmmiñ dana wax waaye fu moom mooy mujje wax moom lan lay mujje wax wa qaala li juluudihim li ma shahidtum alayna ñu ne ko antaqana allahu alladi antaqa kulla shay euh, mbokk yi buñ téyee làmmiñ tànk ne demoon naa barab sàngam loxo ne maa laaloon nàngam bët ne maa xooloon nàngam bakkan ne maa foonoon nàngam buñ leen wax loo ba ñu interroger leen ba ñu pare ci la làmmiñ di jógal del discours am ne leen lan moo tax ngeen di wax di ma dugal tey ñu ne ko yàlla miy waxloo moo ñu waxloo tey kon mbokk yi kenn ku nekk war ngaa yaraat sa làmmiñ xoolaat bu baax li nga ciy génne ndax yàlla kat waxoon na ci alquran ne inna alladina yuduuna almuminina walmuminat bi gayri maktasabu faqad ihtamalu buxtaanan wa isman mubinan mbokk yi yàlla wax na ci alquran ne ñi nga xam ne dañoo jël seen làmmiñ bocc ko def ko jaasi di dal ci kaw jullit ñi di teg ci seeni der lu yoonuwul ñooñu di ñu ngi def bàkkaar boo xam ne kenn xamul na mu toll te léegi mbokk yi suñ jamono tey ji da ngay gis gor soo xam ne mi ngi dund mais dee na bu yàgg parce que wax nañ ko lu ko rey doonte la xaru dafa daganul waaye bu xaru daganul mu rey boppam mbokk yi nañu yaraat suñu làmmiñ yaraat suñu gémmiñ xool li ñuy wax ndax kat am na suñu maam ju baax ju ko bind ci xalimaam ne kuffal lisaani wala tutliqu za hadarin an iqtiyaabi namimatin wa buhtaani an saaqi jiddika sammir wajtahid abadan wala takun zaata waani fi alal xayraani mbokk yi làmmiñ dafa garaaw te yonent bi waxoon na ne lisaanuka asaduka in tutliquhu yakuluka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ku nekk sa làmmiñ mooy sa gaynde soo ko yewee bu rëbbee rëbb amul lu mu rëbb bu wëlbati ci yow la jëm si dalay lekk loolu mooy lan mooy mbokk yi bu kenn wax ci sa moroom lu ñaaw yàlla ka dox na ko ci alquran index si jullit ñëpp ne wala tajassasu wala yaqtab baadukum baadan ay bu ayuhibbu ahadukum an yakula laxma aqihi mayitan fa karihtumuhu yàlla joxañ ni jullit ñi ci alquran ne na ngeen mottandiko njaaw njortulu ñaaw ci seen mbokki jullit yi xool nit xalaat ci moom xalaat bu bon boo xam ne teguloo ko fenn te mbokk yu njort dañuy wax ne photographe la loo ci xas a jàpp loola image boobu dootul dañ ci yow mukk foo ko gisee rek loolu moo ciy dem moo tax nañu yar suñu làmmiñ yar suñu kàddu ci suñuy wax xam bu baax nu ñuy waxe ndax dafa bokkoon ci sarti koor muy téye sa làmmiñ parce que biñ ne la jàppul jàpp ci wax jàpp ci lekk jàpp ci naan jàpp ci sëy jàpp ci mboolem yi la yàlla xaraamaloon ne bu ko def kon nañu wattandiku ko njortu lu ñaaw ndax njortu lu ñaaw mooy indi wax ju ñaaw wax ju ñaaw mooy indi yëddonte yëddonte mooy indi bàkkaar boo xam ne kenn xamul nu mu toll kon mbokk yi nañu garder suñu làmmiñ luñ ciy wax nañ ko xam te ñu di wax loo xam ne leeruñu ndax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne man kaana muminan falyaqul xayran aw li yasmut man kaana yuminu billahi falyaqul xayran aw li yasmut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne jullit nga ne gën gëm nga yàlla te muy dëgg ci yow na nga téye sa laam làmmiñ wax ci lu baax soo ko munul na nga noppi kon mbokk yi dañuy wax ne ida nataqa safihu fa xayrul ijabati assukuut dañuy wax ne bu dof day wax ci sa wet wala koo xam ne xel mi neexul mbaala la muy wax xamu ca dara nee na li gën ca lan koy tontoo mooy ak nopp kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp di bokk mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp jataay bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu